masaalikul jinaan mooy bu nooru dara ni jaawaxtu ak li mel lii di ay poème yi nga xamante ne Cheikh Amadou Bamba daal na ko bind xasaay di nag daal di fees dell ci marché bi ci jamono ji nga xam ne ñoo ngi ci wàccaayu màggal bu Tuuba ci bile boutique nag livre yu bari lañ fi daal di exposé jaaykat yi di ci gis seen bopp bu baax Euh, daanaka ñun moom wàllum njaay mi ak wecc ko xasida yi ñu ngi ciy sant bu baax a baax duñ la mën a wax daal exactement ne la xasida gii moo gën di dem ci màggal gi waaye daal ñu ngi sant bu baax a baax waaw comme ni mu koy faral di def at bu nekk soxna si jënd na lu ëpp fanweeri livre mu nax ko defi ay cadeau suñu dal dañuy am ay daara tout tànk yoo xam ne ñoo ñuy jàngal xasida ak alxuraan donc dañuy wut euh, alxuraan wut xasida di leen ko di leen ko jox àddee daal di leen ko berndele une fois màggal gi egsi loolu moo ñuy ñëw di ko fàggu en grand nombre nag. moo nag mbégte bu rëy mu daldi di sax di ñu liixal yenn ligne si bile xasaayit. yaazal jamaali yaazal jalaali yaa xayra waali lu xay yaazal wuxuudi yaazal wujuudi kubli bu juudi bi lanti xaay. yi lay jëriñ di ñëwaat rek ci solos yi lay bind yi nga xamante ne seen sëriñ daal dina koo bind. xaside yi dafa bari ay catégorie lii sëriñ bi da koo way demul géej. lii mu woy ko ci géej gi lii mu woy ko après géej gi daal di wax ni xasida ti faaxat xasaay dil kiram mbooleem xasida gu ma sa dégg rek sëñ Tuubaa neen sama xasida ko gën a kawee bépp taalibe murit dafa war a jàng xasida même bu dul taalibe jullit bu nee dafa war a jàng xasida ndax nee na xasida yi baaxiyaat saalihaat la kon ku bëgg lu baax ku ne te mën a jàng rek war nga koy jàng mu tagg mu sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci yonent bi nga xam ni lépp lu mu bind lu yàlla suñu borom nangu la ba noppi. si jamonoy safar gi nag ñii di taalibe murid yi lu ñu farlu rek mooy jàngu xasaayid yi comme ni ko seen sëriñ digle nii nag lañ ko nar a jàppee ba bésub màggal bu Tuuba.